mën a jàppale ndaw ñi ba ñëpp am liggéey porte-parole Pastef bii di xamle ni Macky Sall mënul tiital kenn bu yaakaaree ne nag mën nañu noppiloo mu ngi nax boppam ndaxte jamono ji la ñu gën a takku taxaw ngir jàppale suñu leader bii di Ousmane Sonko en tout wér te wër mu di Pastef moom dana taxaw temm ci lépp loo xamante ne ni dafa bëgg a faagaagal suñu démocratie bii du ko seetaan te manifestation yii ñuy tere itam tey la wàlla gën a aay ci réew mi sax dañ cee dugg ndax maire ya ci boppam ñoo jël suufu population ba nag takku nañu taxaw tey interpellé président de la république Macky ngir mu wax ci sàcc gi nga xamante ne ni yi ci bi ñu ngi bëgg a deek ñàkk ndox rawatina biir Dakar yéene bi ubbi ci xët bu yaatu ne jamono ji population bi sonn nañu dee nañu tàyyi nañu ndax wutum ndox ndax war ba noppi ñàkk ndox moo dogee bëri ci quartier Dakar yoo xamante ne nii fi mu toll ni moom la ñuy dund source a ubbi kër soxna Aïda Diallo yéenekaay bii de ab jëwrin bu sës rëkk ci soxna Aïda Diallo moom la ñuy jiiñ sàcc gi ñu sàcc ay millions cëttu soxna sii fi nekkoon soxna Cheikh Béthio Thioune gannaaw ba ñu defee célébration 17 avril bii la jaboot ga dajale woon bëgg ko jox soxna Aïda Diallo moom la jëwrin bii yóbbu jabar ji nag coow li dem na justice ndax alal gu takku la gu tolloog ay millions la yóbbu te kenn xamul fa mu jaar l'observateur ubbi xët bu yaatu jagleel ko ñetti kàngam yi nga xamante ne ni bu ñuy wax APR ñoom ñoo tax ndax ñoo ko samp Macky Sall Mimi Touré ak Alioune Badara Cissé mi nga xamante ne di jamono ji jaaroo wu ñu taal te diggante mel na waxtaanu ku tëx kenn déggul sa morom yéenekaay boobu ci xët bu yaatu di leeralal lan moo tax seen diggante gii naqari lool jamono ji ne en tout ak lu ci mënti xew coolu ku ci nekk bëgg a wane bokk kay ci série bii di maîtresse d'un homme marié moo na sénégalais ne dañ koy seetaan ci série bii di maîtresse bi def ay révélation yu rëy moo tax Mariam Dial mii daal di démissionné ci Marodi TV del soir ci payorom gi nga xamante ne yu bëri jàppoon nañ ne dafa tuuti lool moo tax Mariam Dial mii daal di démissionné ndeke Mariam Dial jege woon na un million de francs CFA yéenekaay bi def ci ay révélation ci Mariam Dial mi démission bi ak lan moo tax mu dem Abidjan lépp gi ci biir yéenekaay bi Le Quotidien yéenekaay moom jombi jommet ci faux médicament yi nga xamante ni mu ngi mel ne tulleeg man la ci réew mi gannaaw lim bu takk bi nga xamante ni jàpp nañ ko ci duwaanu Padoa am na beneen saisie bu ñu defaat ci trafic de faux médicament bi ne ci enseignant yi nga xamante jamono ji recrutement yi mu ngi benn tullek man le état bu Sénégal accéléré recrutement yi lu tolloog 8700 enseignants dañu tas ko ca na mu gën a gaawee samp ab commission bu yees boo xamante ca bopp ba ministre de l'intérieur ci boppam moo koy jiite yéene kaay bi dellusiwaat ci coow li nga xamante ni moom ci Konako ne gannaaw génnuk àdduna imaam Iyane Thiam coow lii ci kan mooy jiite Konako ak yeneen kuréel yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci wet gi lépp li ko waral moo di ñàkk juboo Adama Faye di xamle ci biir yéenekaay bi tas lañu war a def Konako bi ndax mënatul séntu weer bi fu ko defee ñu samp beneen commission boo xamante ne ni kay contrôler moo di ministère de l'intérieur comme weer wi feeñ feeñul coow li mën a dakk ci mim réew ah a na nekk coow ci Sénégal waaye